asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah lundi 23 novembre 2020 ñëw ak ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko. mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb moom fa mu xëy tey ñëw ci xëtamu njëkk daal le roi des arènes la ñu xëy tey wan mu nga toog yoreb micro am yëglikaay ba nag la mu xamle daal dana ki nga xam ne moom mooy adversaire u Ama Baldé ba daal lenn lay semaine bi nga xam ne ci la ñu ne muy jàkkaarloog nga xam ne ñooy way taskatu xibaar yi maanaam conférence de presse daal la Modou di waaj a def ci biir semaine bi nga xam ne ca la ñu ne la ko waral nag yëglikaay bi jàpp ne daal xanaa lenn lañ ca mën a xalaat maanaam ba mu bërik Eumeu Sène ba daan ko nekk roi des arènes ba tey kenn déggul digganteem ak Ama la nga xam ne nii mooy siitu carrière am ak ay projet am moo la nga xam ne mooy jàkkaarloo ba Modou Lo fas yéene jàkkaarloo la nga xam ne moo di presse ba wax ak ñoom combat ba nag ña ko tëgg muy wàllig Nicolas Enko am na koo xam ne mu nga xëy di wax ci seen tur muy coordinateur ba di raay ba raay daal jàpp na ne diggante Modou ak Ama moom danañu fexe ba mu nekk événement boo xam ne ni day buñ ci jógee képp ku tëggate événement wala ku koy defate da nga ñëw laaj leen ndax lañ ta fas yéene def daal la raay ba xëy tey di ko leeral ci yëgle yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi moo xam sunu lamb la moo xam record la moo xam Leewtoo point la wala TV fu nekk daal ay waxa nga fa jóge ca la nga xam ne nii moom mooy biraasi nag équipe ca mesure nga xam ne commencé nañ di ko jël maanaam daal di indi ay yoo xam ne nii ñu ngi koy teg mel ni ki nag semaine bi nga xam ne ma la ñu def ci ay ndogal ñu jël ko mooy ginnaaw ba ñu wàññee la nga xam ne mooy licence yi ñañu dàqoon maanaam arbitre ya intégré nañ leen dugal leen ca biir mbir ya ngir ñu fas yéene nag seex soufflé yee soufflé waat yemuñu ca mu yëkkati caaro yi mbooloo bañ ajoon te ñàkk jariñu jiite ko ak Aline Seyde mañ ko boole loon aj mu mel ni ki ñoom ñoo bëri woon te mu amoon coow loolu lépp daa ni daal gaa teggi nañ ko teggi ko fële maanaam lépp lu fi newoon ci ay sanction daal ñu koy dindi mel ni kon daal bira fi nekki ni daal yoon woowa moom la jël record xëy na tey ñëw wax nu ci moom tamit xamal nañu ne daal li am ba des daal mooy ka nga xam ne moo dindi nañ ko ba mu set wecc yëglikaay bi record tamit noonu daal la gisee mbir ya ba tey ca mbirum arbitre ya ka nga xam ne moo di Sitor Ndour ca sunu làmb moom ne moom war ma taar ba confirmé loon na ko ne daal li am ba des moom jàppal maanaam daal li nga xam ne nii moom des di waxi Sitor Ndour ba tey ca la nga xam ne nii moom moo di aji googu nga xam ne ajoon nañ leen ko te aji leen ko ba tey bu ñu demee fa nga xam ne nii moo di ci record ba tey ñu ñuy Sitor nag daañu sexaat soufflé ya wàcc ca géew ba fas yéenee soufflé mbër ya bëre yëglikaay bi record moom noonu la xëy tey waxe ko mel ni ki nag Bira Sène ma nga xam ne nii moom moo nekkoon ca Kaolack jiite CRC ba daal fi mu nekk nii daal ka koy remplacer daa mel ni nag am na ko présenté wu de ñu koy wax Semou Diouf moom daal fi mu nekk nii jël bang ba la bëgg ginnaaw ba Bira nag ñëwee jiite lambi réew mi yépp léegi ka ca des topp ci moom muy may sa njaay itam daa mel ni fa nga xam ne nii muy ca Thiès ka war a jël place am daa mel ni gars yi acteuru lambee daal la ñu jàpp mooy ku ñuy wax Thierno Ndiaye daal moom la ñu gis fa nga xam ne ni moom mooy ca place ba ngir mu fas yéene jël la nga xam ne nii moom moo di place ba jiite la nga xam ne nii moo di làmb ji ba tey bu nu continuer ci bira ma nga xam ne nii daal fi mu nekk nii moom lañ fi teg muy commencé y doxal Xaadim Njaay numéro un di dëkk ca caaruy géej daal jàpp na ne décision yi nga xam ne nii daal moom la waa ji commencé jël mook équipe am ne na moom day mu koy rafetlu te saliyé na ko bu baax a a daal moom fi mu nekk nii daal ne na li ñu a mooy ànd ñun ñëpp takku liggéey fexe làmb ji jëm ca kanam te we xaajal parparloo bi jàpp loolu moom njariñ du ko indi kon daal nañ laxasoo ñun ñëpp nekk benn buum liggéey loolu mooy waxi ka nga xam ne moom moo di Basiru Baabu jiite la nga xam ne moom moo di Manar Seye ba tey bu nu continuer daal boo bëggee dégg-dégg yëglikaay bi ba tey moom record ñëwaat na tamit ci loo xam ne ni daal mooy mbirum licencié jàpp na ne ginnaaw àllarba ji daal la ñu commencé nag fas yéene nag di jaay ay licence kon daal fi mu nekk ni moom ku yebu jatu ni ab dem wuti sa licence ndax nag à partir de mercredi daal la ñu yëglikaay bi xëy xamal ne daal danañu ko commencé ni Mira Sène daal la nar mu nga ca de ba tax na ñëpp ñu mu jàpp ne ay boroomi xam-xam lañ wala am nañ ko luñ ko war a a yokkal mu ngay dem di leen seet yëglikaay bi record xamal nañu daal Abdoulaye Diaw ma ca RFM Abdoulaye Diaw journaliste sportif bu mag ba daal Bira Sène sol na ay dàllam dem seeti ko mel ni ke nag Abdoulaye Diaw bég na ca loolal lool ba ñaanal ko yàlla itam ca mission ba nga xam ne moom lañ ko dénk ne ko yàlla nga ko réussir ba tey démb la ko wër ñoo def rawante gaal woon ko ko moom promoteur bi mel ni kii nag mbër yaa nga fa woon mbokki promoteur yam tamit teewoon nañu jàppale ko mel ni kon foofa démb gumbeek ndaw rabbin ak rawante gaal démb moom am na fa waaye man la ma ca gën a neex mooy maanaam daal maam daaw gaal dem na géej bañ ko sàjjee yàgg maar sama xel la mu dem mooy arbitre soufflé mbër ya bëree mel ni kon daal kon loolu moom moo fi amoon yàgg asalaamaaleykum wa rahmatullah ko internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen mel ni ki nag tey ñu ngi ci lëndi ah lundi euh, tombe ak ñaata fan ci weer wi yàgg maar waa tey la alterné tombe ak 23 novembre 2020 yëglikaay yi sunu lamb record Leewtoo fu nekk daal xibaar yi lamb xëy na fa bu dee sunu làmb la nag moom la mu xëy tey njëkk ko fësal moom bokk na ci le roi des arènes Modou Lo la ñu xëy wan ci xëtamu njëkk woo ne daal ah mu ngay waajal benn conférence de presse maanaam fas yéene ne ci la ñu moom lañ ca nar jublu nag ginnaaw ba mu jógee ci làmbam juré ja nga xam ne moo ko mayoon mu nekk roi des arènes ba tey kenn déggu ko parce mu wax waxam xam naa ne jotu fee ci diggante boobu ak léegi kon nag war bi jàpp na ne xëy na loolu moo tax mu bëgg a wax waaw yaakaar naa itam loolu il est parce que nag wax dëgg yàlla ay supporter bëgg nañ koo dégg waa làmb itam bëgg nañ koo dégg mu wax parce que boobu ba tey mu ngi toog jàpp njàmburam mu motloo yaakaar naa li gën a nag ñi gën di xaar ci bokk na ci digganteem ak Ama Baldé ndax combat bi fi mu nekk nii a ah, wax jaa ngi ci nii la ak naa la waar ko si nañ de janvier lañ bëgg a bëreeg yooyu yëpp kon nag moom Modou mi nga xam ne mooy ndey mbil gi moom su waxtaan ak staffam ak ña ko wër ba fas yéene nag def conférence de presse kon xëy na daal semaine bi bu soobee yàlla ah waxee dana leeral lu baree baree baree bëri ndax nag li nga xam ne nii moom la nit ñi di xaar kon ba tey bu ñu continuer du ñu génn foofu ndax ña nga xam ne ñoom ñoo tëgg combat ba muy waa Ligue Nicolas Enko am na koo xam ne xëy na tey wax ci seen kàddu muy suñu grand raay ba ñu koy nuyu di ko xam la mu xam le daal jàpp na ne wala boog jàpp na ne combat boobu muy Modou ak dana danañu fexe ba mu nekk combat boo xam ne événement la boo xam ne buñ ci jógee ah événement bu waaw boo xam ne daal lu inédit maanaam lu maanaam daal lañ ca fas yéene def moom buñ ko ca defee a ci côté organisation wu làmb ah bu ci nekkul numéro tamit du ci maanaam du génn trois premiers yi de moom kooku moom yàlla dogal na ko parce que nag yàgg naa def ay événement yoo xam ne nii événement yi coow li foo ko takk weesu na ko parce que li tax mooy dafa ñime des di relever ay défis di dugg ci loo xam ne dana est ce que nekkam du nekk kon defe naa bu raay waxee loolu war na mën a ne bi ci des mooy ñaari mbir yi ko seeq ku ne xam na seenu soxlante bëgg a bëre di wutante ba tax tey ñu war a bëre la ca nekkaat enjeu mooy diggante ba maanaam roi des dafa tëdd ka ko yor mooy Modou Lo ama soxla ko pour dugal ko Pikine Modou itam la mu bëgg mooy na mu ko nangoon ci waa Pikine mu continuer di ko sàmm ndax bu kenn fàtte ci magi ama la ko nango woon muy Eumeu Sène kon defe naa bu combat événement ci boppam la doon ci diggante ñaari mbir yi nag bu ca promoteur ba raxee la mu yor kon dana nekk événement boo xam ne yàlla nañ ko fekkee te tal daal di ñaan yàlla tamit promoteur yëpp ku ci ne rek événement ba nga jublu yàlla na ah lig moom côté événementiel moom waaw l'homme waaw l'homme des grands événements sax bañ nañ ko boole la ko suñu grand ba tudde woon muy grand Malick Thiandoum ba père Bekaay di ko woy le promoteur du continent kon defe naa loolu nag su amee gars waxuñu ko ngir jeté koy fleur mais la lu muy wane la ci ay preuve ci côté organisation ay combat waaw kon daal loolu mooy li nga xam ne moom la raay ba xëy tey di ko wax ba tey bu ñu fa jógee nag Leewtoo point net Leewtoo TV sunu làmb record ku ci nekk xëy nga tey ñëw ci arbitre yi nga xam ne dañ leen sanctionné woon te dogal samedi ji ñu génn comité directeur wala boog waa CNG bañ dajee ñu lever maanaam sanction ba dindi lañ leen tegoon maanaam sanction bañ leen dàqoon ne dootu ngeen fi arbitrer ñii ñu aj raje leen à vie ñu ca des ñu aj leen ay at loolu lépp dindi nañ ko ko ko def mooy Bira Sène ak équipe mel ni nag Sitor Ndour ma nga xam ne moom moo leen jiite daal jàpp na ne loolu moom Matar ñàkk ci lu mu mën a doon lu ñu bëgg mu jub des na ca teg ay sanction waaye am na façon sanction yoo xam ne su amee nit ñi dañuy jàpp ne li jaarul yoon te defe naa arbitre yi bi ñu leen sanctionné sénégalais yépp ñuy dund lamb ak ko dundul képp sportif sax wala ngay sénégalais jàpp nga ne loolu nag moo tëdde noonu loo muñ day jeex kon defe naa beneen équipe ñëw na dindi sanction ya lañ doon laaj itam am nañ droit di liggéey nit ki laaj ko maar la nga xam ne ni moom nga jàpp ne war na la koo yokkal ci sa liggéey pour nga gën a nekk ci sécurité pour nga gën a nekk ci sa maanaam gën a mën a def sa liggéey loolu nag pour man su amee la koy régler mooy ngeen waxtaan waaye du ay sanction te itam du ay du ay du nañuy jiital waxtaan ci lépp lu mu mën a doon loolu mooy tax mbir yi dox bi ci des mooy bu ñëwee ba tey si côté aj boobu ku ne xam ne ne Alioune Seye de ñàkk jariñu suñu papa Khadim Samb ñu koy nuyu di ko ziar moom moo ko tëggoon ba mu ko tëggee làmb ju neexoon maar ñu dem ba ñaar ñu war a bëre ah xëccoo gàllaaj am fa dóor am fa ba deret tuuru fa ka ko defoon nag di koo xam ne ci àndandoo ñàkk jariñu la bokk ba tax buñ ba mbir ma jeexee nag ca semaine ba seen see jël ay ndogal daar daar jamono Alioune Sarr aj ñàkk jariñu aj écrit ba yëpp aj Alioune Seye mel ni ki nag loolu tamit nit ñi jàppoon nañ ne même bu sanction day amit na mu amee gaaw na te nañ ko defee jàppoon nañ ne yàkkamte am na ci ndax buñ dee aj ñaq jariñu xanaa ñu aj ko moom kese waaye ajaale mbër yi mu bokkal écrit te ñooñu xëy na amuñu ca responsabilité loolu moo jaaxaloon sénégalais yu baree baree bëri te sax nag ñaq jariñu sax ab ajam nit ñi dañ ko seetat ndax moom moo dóoree waaw xëy na nag moom mooy mbër ma moom moo tax waa ji dugg ca géew ba waaye yooyu yëpp fi mu nekk nii yu xam ne nii moom romb nañ ko gars yi nañ sanction ya mel ni kon daal ah équipe bii fi nekk xëy na jàmm la ñu bëgg jàmm la la ñuy wër waaye nag nit ki buy wër jàmmit yow mi muy defarle da nga koy bëgg le jàmm parce que nag li ñuy def nii mu am na solo trop waaye tamit nañu xaar ëllëg parce que ay sanction du mën a ñàkk parce sport bu mel ni lam ku ko bëgg a defar faw mu am ay régal kon régal yooyu itam bu ñu ko fi tegee ku ko xët bu la yoon dalee ah bu ñu wax ne gars dañoo def lu ñu war a def parce que li ñuy def fan yi daa mel ni neex na waa làmb kon tam bis euh, ah bi nga xam ne moom la gars di doxal ak ak CNC bi ah loolu muy lu amam solo père Babou tamit jàpp na ne nañ continuer rek liggéey àndandoo pour lamb ji gën a baax Bira Sène adjoint bi di Sémou Diouf daa ni moo présenté wu fi nekk ni pour jël place ca CRC ba ca Kaolack loolu tamit defe naa lu war mën a nekkal parce que daaxaar naa daal xaw ma Sémou Diouf lay doon xaw ma ku cay doon waaye ku ku mérito rek yàlla na ko jël pour nga mën a doxal làmbi Kaolack ba doxal lu raw la Bira daan def ka ca des mooy Maysa Ndiaye tamit moom tamit ka ko ka ñu jàpp ne moom war na ko wutu mooy ki nga xam ne moom mooy Thierno Ndiaye moom daal daa mel ni moom la waa région de Thiès di tànn moom la ñu xalaat bokk waaw loo ci mën a dégg daal ñooñu ñëpp ku ci ñëw daal yàlla na nga doon ki gën ca làmbi dëkk ba nga xam ne moom lañ jox muy Thiès ak Kaolack waaw ak yeneen raison yi sax ña fa ne jitaay CRC ba tey bu ñu demee ci record tamit ñëw na ci sanction arbitre yooyu rek waaw Sitor Ndour ak ay gaayam ah daañu seexaat soufflé yi bi soufflé arbitre yi bëree moom ñëpp bëggoon nañ ko loolu yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax nu ko ba tey Bira Sène tamit yëglikaay bi record xamal nañu daal ah daa mel ni la Alioune Sarr daan def moom daa mel ni dafa ñëw wàcc yoon wa ne ca leneen waaw mel ni kon loolu tax ñu teg ko fi ah parce que man yàgg naa di ko wax yàgg maar Bira Sène damaa yaakaar ne responsable la kilifa la tey itam defe naa ne kenn du ñëw di ko dicter ay loi naan ko ni ngay doxee dafa fekk ne nit ki boo ko remplacé mu def ab liggéey la nga war a def mooy fi liggéey boobu te Alioune Sarr dafa am liggéey bu am solo bu mu def ci làmb olof du yàgg na koy wax daanu dajul suuf kon nag Biraay tam bu ñëwee am na xalaat am na gis-gis borom xam-xam la ñu ko wër encadré ko ay borom xalaat lañ defe naa nekkul na day ñëw rek war a continuer Alioune Sarr doon def defe naa kon bu keroogee moom ci boppam day doyadi moom la ko war mooy mu ñëw lam fi defoon la la fi Alioune Sarr def lu baax mu yokk ko la mu jàpp ne nii ay dese yu normalul la mu dindi ko indi la xam ne moom moo baax ak la mu yor mook équipe am yokk ko bu ko defee mbir mi jëm kanam naa loolu mooy li nga xam ne nii moom mooy wax ji waaye itam ñuy féliciter suñu soppe Baba Diop borom Thiam production démb ak waa Soumbédioune ak Medina Gueule Tapée tudde woon ko ay rawante gaal maar démb laay doog dem rawante gaal mais itam pomu neex la dafa xaw a méngoog làmb sax ndax dañ fa gis gumbe gis fa joow gaal gis fa libu yi affaire yi neex macha allah Baba Diop tamit loolu moo lay wan ne quartier boo ci nekkee da ngay jimamal waa quartier ba am na solo su ko defee ñoom lu ñu lu ñuy def rek dinañ la ci fàttaliku parce que maar boo yoree dërëm ne du ko ko koy bokkal waaw ndax ku nanguwut a joxe dërëm doo joxe million loolu moom na la leer loolu nag buñ ko waxee mooy moom la mu am mu bëri que mu néew mu ngi koy bokk ak waa Medina ndax am nañ ci ay preuve chaque année ay at yu boog yu teglantoo dina jënd ay nag bu tamxarat jotee rey ko jox ko ay nu ñu tamxarate ko te loolu lépp bëgg sa gox a koy def te ñàkkul ne am na ñu ko ëpp daraja ci waa am na ñu ko ëpp koom-koom biir Medina waaye loolu. du mbir mi mbir mi fi mu nekk rek mooy yàlla jox la ko nga nangu koo bokk ak ñi la yàlla booleel defe naa loolu moo am solo kon Baba Diaw ñu koy nuyu di nuyu madamam di nuyu promoteur fa teewoon yëpp ñoom Dieye Sène Abdoulaye Ndiaye Mor Mbaye ngéwél production ñoom Bamba Faye ñoom tout le daal bu ñu limee dinañ juum ak Jimson suma waa jooju waaw di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm maar di la wax ne daal tey tamit xam naa ci kanam ministre bi dana dem jaale ji ka nga xam ne moom mooy Balla Gaye Ndour ca Géejawaay muy loo xam tamit defe naa ne lu war a am la parce que ci monde sportif la bokkoon créer fi école créer fi ay champion defe naa tey il est na ministre bi dem Matar Ba tamit ñu koy féliciter ci loolu ak disponibilité boobu di ñaan Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm defal ko bépp doomu moo xam ne nii yaa ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV Magamar di la ñaanal jàmm taalibi Cheikh Béthio cuun bi na su baax maar de 2020 baa ngay dem